donc Cheikh Omar Ousmane Sonko président partie PASTEF la euh, moom kese mooy dem àndut ak benn coalition ci li nga xamante ne moom mooy législatif yi est-ce que moom tamit ci côté c'est pas un peu risqué euh, ak coalition yi fi dajaloo yépp ku la wax ànd la kenn daa coalition de coalition la de. waaw mais ñeneen coalition maanaam boo gisee ma ne la àndut kenn. maanaam coalition yi yeneen yi ñoo gën a bëri parce que boo xoolee bu vous am na bu Siggil Sénégal am na bu Macky Sall am na. mais te ñoom yëpp li ñuy wër mooy li Sonko bëgg am. mais c'est le vrai débat Sonko va sortir de l'église à 22h en tant que leader de Pastef mais aux élections législatives Ousmane Sonko est allé en coalition. coalition égale un parti plus un parti. Hmm. Pastef va aller sur ses propres couleurs et pour moi c'est un choix stratégique. parce que bu njëkk ba Pastef moo doon bàyyi ñëw nekk motoor par exemple ci opposition bi ñu bëri am ci ay cër bu ñu demee ci biir woon ko ginnaaw léegi ah. Pastef nag daal yàpp kaaram teg ko wut chauffeur am wut apprenti ku bëgg a dem kaay nga yéeg hmm. Aïda Mbodj amul partem dugg na ci coalition ci biir investisseurs yi am na kuñ ko ñu ko tabal Cheikh Tidiane Dièye dugg na Habib Sy dugg na te nekkuñu Pastef kon yàpp donc c'est une coalition donc li nga wax nag mooy élection bi dafa am enjeu et on a vu ay coalition mooy affaire de cour des grands il y a Ousmane Sonko et ses alliés ça veut dire Pastef et ses alliés Macky Sall qui a perdu Amadou Ba qui a pris une partie de l'APR dem d'un ko jeeg jeeg ak njëriñ xaw ma jeeg jàmm ak njëriñ jàmm ak njëriñ <laughs> ak après le PDS ak Macky Sall ànd nañ est-ce que ànd bi dal na xel est-ce que sénégalais loolu du teye seen xel comprendre nga beneen bi ñi nekkoon ci élection présidentielle ñoom Bougane ak moom jàllul woon ci élection yi euh, Anta Babacar Ngom ñu nekk ci pôle bële donc on a quatre grandes coalitions maintenant politiquement mhm. le fait que opposition bi nekkul benn say ça fait l'affaire de Sonko et Pastef parce que élection bi raw gàddu la voilà maintenant plus l'opposition est divisée plus elle travaille pour son coup, indirectement donc par exemple à le fait que mon gagne, mon gagne département que par exemple mais voix yi je suis ay voix wu li dem ci là ça va faire la différence donc ça fait l'affaire de Pastef politiquement intercoalition hmm. parce que dañu un problème d'ego en ñoom. très bien parce que élection bi raw gàddu la département yi raw gàddu la ku ëppale benn baat yaay jël par exemple donne l'exemple de Dakar Dakar ku gagné am nga sept députés waaw léegi ñoom jaas buñ taxawee tibb Macky jël liñ ci moom waa PDS doolee ko feulé Amadou Ba doolee ko feulé mais légui loolu moy opposition bi sen voix yi divisé wu na les passeurs mom day ñafé li mu jot am mu téye ko imagine bu passeur gagné Dakar amna cette députés mais nombre bi à Dakar dañ sur la nationale parce que ben député bu nek dafa nombre de voix mi pc té yi si sur la nationale donc élection bi département ak national gagné euh, Dakar département Pikine nga jël euh, plus donc déjà, rien qu'à Dakar, avec les 7 députés, plus 5, ça te fait 12, plus les deux de que les deux de Guédiouaï, ça te fait 16 euh, députés déjà. Comprendre. Mhm. Après, il y a une région qui comme Thiès, après Djurbel. Donc, il y a des gens qui ont fait des Donc, la division de l'opposition, favorise PASTEF parce que c'est une élection au niveau des départements et il y a plus de députés sur le département que sur la nationale. Maintenant, la sortie de Sonko, c'est une sortie politique. parce que des fois, on a une investiture, on pareil. Bien investir, le pareil. Il euh, y a un comme premier ministre, mais il sort comme président de PASTEF. Est-ce qu'il va s'adresser aux militants de PASTEF Voilà, il va s'adresser à la masse électorale. Parce que, n'oublie pas que, amna nyo xamanteni voté won PASTEF nan la leen di convaincre pour ñu fekk si ko. Mhm. moo tax tey ngay gis ñu bëri ci ay parti dem par exemple nan lay def pour que le leader politique qui va tirer au maximum maintenant Sonko c'est une bête politique en matière de communication politique À la ci am par rapport aux autres il est un peu en avance sur ça et après quand il sort ces sorties vont se démultiplier on va débattre sur la wax ak lu waxul opposition bi riposter mais l'essentiel son Sonko <laughs> sera toujours dans le sujet ah pour moi c'est très politique voilà donc, nous euh, donc ñu yëkkati jotaay bi rek mais nous avons dit, la campagne électorale bi kañ lay commencé exactement. Oui, mais campagne électorale bi normalement le 27 nous ñu le texte code électoral la campagne bi 15 jours lay dérouler donc euh, normalement ça a calculer le 27 moins def 15 jours maintenant bu fait, l'élection est le 17 deux jours avant la clôturer la campagne donc ça veut dire que euh, l'élection. D'accord, donc si l'élection on aura euh, on aura une campagne électorale normale ci deux semaines. contrairement à deux semaines. deux semaines. et puis élection comme dimanche tombée, la campagne vendredi à minuit lañ koy clôturer pour le fan dimanche bi voter. Mhm. donc en principe normalement la campagne sera du 25. et puis man li ma dire que neex mooy ils ont élevé le débat voilà ils ont parlé de projet ils ont parlé de développement d'économie Il faut que la la classe politique même l'opposition bu leen di tontu na leen tontu ci xam-xam soxlatuñu ay saaga donc au moins ñun sénégalais nous gën a soxla le débat bu Nous ñu wax ci problème réew nous wax ci

Sonko rek moo nekkoon homme politique boo même opposition télé day ñëw mu dindi ko. dem waxi ci internet gars yi dem for ko jël ko génnee ko donc moom c'est force de communication boobu mu am c'est quelqu'un de de de convaincu et de convaincant il a une capacité de persuasion et un bon leader il doit maîtriser la communication. d'accord mu ngi noonu Cheikh Omar xam naa ba suba nga jàkkaarloowaat ak euh, téléspectateurs yi ak ak rek rabbi merci beaucoup. merci à nos chers euh, téléspectateurs.